asalaamaaleykum mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu di di wax képp kuy gan ci chaîne bi ñoo ngi leen ñaan nga abonné te bës cloche bi ndax euh, vidéo bu ñu dugal rek nga bokk ci ñi koy njëkk a gis wooy leen di like wooy leen di commenter également te di partager vidéo lu ci am solo la euh, ñu ñëw ci actualté bi actualité bi ñu fas yéene waxtaane Thomas Tuchel bi nga xamante ne ñi ngi koy critiquer fële ca Allemagne euh, mais ñu commencé ko suñu gaynde yi 17 yi yi nga xamantene jamono yi ña nga ci Algérie di euh, waajal euh, coupe du monde u coupe d'Afrique U17 bi plutôt donc liste bobu ngeen gis mom lañ ñooñu lañ convoqué 26 lions yoy lañ convoqué donc ñu wara défendre couleur au Sénégal fële Algérie donc euh, ñom nak ci groupe A bi lañu bokku bokk ak Algérie ak euh, ñi nga xamantene ñoy Congo ak euh, Somalie donc ñoo ngi leen di ñaanal bu baaxa baax ñu dem ci compétition ba vraiment wane fa fulla fayda ak jukkay gayna Njaay ki di Thomas Tuchel Thomas Tuchel wax naa ne jamono yi instant bi vraiment situation mi ngi gëna critique fofé ci Bayern parce que depuis bi mu fa ñëwé 7 matchs la am def def 3 défaites alors que ki nga xamantene moy negal semaine euh biñu dàq 37 match la def def 3 défaites kon déjà égalé na record bobu non ci saison bi mu nek lo situation bu catastrophique bo xamantene instant bi wa Bayern ñi ko dund mais instant bi tout supporter yu Bayern yi ak média yi li ñu wax lépp moy instant bi Thomas Tuchel limi jouer joué kenn xamu mën fexé ba installé euh, jeu bu baax ci équipe bi jeu bi ñu joué baaxul euh, mom lañ doon rapproché ki nga Je ne mooy Nagelsmann loolu moo waral instant bi média yi mais

Will still donc nee na Diop il a beaucoup progressé cette saison donc au niveau défensivement donc ci tous de bali n'est nee ci début de saison vraiment. Linko ñu ko waxoon mooy que mu bàyyi bal bi nga gardes lay garder ci PM lay garder ci tanki donc mu koy teel a et que lool noonu gis na que ne mi ngi ciy euh, mi ngi mi ngi mi ngi bu baax et que offensivement et défensivement tamit progresser na ci donc neena euh, potentiel bu exceptionnel le jël le PM et que gis na. Euh, euh, le profil athlétique et physique bi mu donc euh, c'est un très bon jour et que nee a progressé na cette saison fofé Ligue France di leen leen vous di leen wax di like wéré di commenter jaa